daa leen ko wax di da yàgg naa leen ko wax ngeen am da nga am taw taw rek lañ ko may xaas la ñu am ñoom ñun fekk nekk de nekk si li gën a xas dégg ci xas yi xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér wér wér yoo xam ne tawee ba ñëpp war nañ cee ñee te ngeen dund ci fàggu yooyu nag dañ ko bale xaas xaas ngeen am waxuma taw feex taw feex ku bëgg sëñ Tuubaa am na waaye ñun xaas ngeen am wa baxdu gannaaw ba ma sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fal xaradu sama xemam teef nasmun mooy nose ab woy woo xam ne yustafa tànnees na ko fii jan bi sayidil baraya ma jëmee ko ci wàlluk sangum mbindeef yi al mustafa kare kuñ tànn sala yàlla julli ali ci sangum mbindeef yooyu man yàlla mi nga xamee ne raqaani yéegee na ma bii ci darajam kama kaba niki noonu la nërmalee la daane mooy daane mooy nërmel bi ci barkeb yonent bi àll ci ngóor nga xamee ne alqaani daje woon nag man ci 1895 di 1313 mu ne wa baxdu su waxee wa baxdu rek mooy ku sant yàlla juli ci yonent bi ndax bi muy tàmbali xasidi gi waxoon na alhamdulilahi al muqiiti bayit ba mu ca teg julli na wa salawaatu man taxaala an walat sëlmal gi ñetteel dégg nga ñeenteelu bayit bi salaamu sil kursi wala xarsil asim moo tax mu ne wa baxdu kon gannaaw ba ma sant yàlla julli ci bi yow soo ma doon laaj waaw xasida gi moom foo ko jëmee dama naan la benn xememtif laa muy wëy xasida goo xam ne gu ñàkk morom ndax su fekkee da ngay wëy ku ñàkk morom da ngay xool wëy wi gën a ñàkk morom nga jëmee ko ci moom moo tax mu ne sama xememtif mooy nose woy woo xam ne tànnees na ko waaye dama koo jëmale ci wàllu sangu mbinde yi moom mi nga xam ne mooy ku ñu tànn ka di max naa ci yonent bi laa ko jëmale moom kese amul keneen ku ma ci tagg ci xasida gi gis nga ko amul keneen koo xam ne dama koy tagg ci biir xasida gi yonent bi sallallahu rek laa ci tagg moom laa ko jagleel kon nag yàlla yàlla julli ci moom yàlla mi nga xam ne ci darja yonent bi ci la ma tarq yaa yéegee ma fa moom ni ko doon ci barke bi yonent moom yàlla ka daje woon a man ci jeey sa fexe ba ñu ma ci géej ga sànni ma fa yàlla nërmel lu ko kabba mooy koo xam ne sarraxahu ñaari mbër yi doon liwatoo ba yàgg kenn ku dóor ko rek mu yegg suuf noonu sëriñ tubaab bi ka nga xam ne moo ko doon fitnaal ca jeey sa siin yàlla nërmel na ko daan na ko sëñ bi mujj am dam waaye lépp nee na mi ngi amee ci barke bi yonent bi moo tax mu ne salaa yàlla julli alayhi ci yonent bi man yàlla mi nga xamee ne raqaani yéegee na ma bihi ci barke bi yonent bi kama kaba niki noonu moom yàlla noonu la nërmalee bihi ci barke bi yonent bi allati ngóor sa nga xam ne alqaan yi daje woon ak man ca jay sa sin maanaam kama sànni woon ca géej ga daal tabaarakallaahu kooku yàlla nërmel na ko daanal na ma ko ci barke bi bi salaa salaam aska salaatin gën ka sell ci ak julli bi salaamin gu ànd koog sëlmal yaqbalu goo xam ne dana nangoo bi haa ca moom jihaad yi sama jihaad allasiina ak gaa ñi nga xam ne kubbiloo jéngees na leen maa ngi dagaan ci yàlla julli ga gën a sell ga ànd ak sëlmal nga xamee ne ci julli googu ak sëlmal googu mbooleem ñi nga xamee ne ñoom laa àndutoon pour ma yëkkati lislaam muy nasaraan su bon sa te ñoom ñëpp yàlla tëj na leen jéng na leen yàlla toroxal ne leen ñoom ñëpp dem nañ safara mooy seen dëkkuwaay moo tax nag mu ne gën kaa sell julli gu tukkee ca yàlla waaye gën kaa sell sëlmal gu tukkee ci yàlla yàlla na ko yàlla sotti ci yonent bi waaye nag yàlla maa ngi koy ñaan sama jihaat jooje mu nangu ko jihaat ja ma doon jihaat ak nasaraan yi nga xam ne suñu borom jéng na leen kon aska salaati gën kaa ak juli bi salaamin gu yaqbalu goo xam ne dana nangoo moom yàlla bihaa ci julli googu ak samal googu jihaad ya sama jihaad tak allazina gaañ nga xam ne kubbiloo jéngis na leen laxoo ñeel na ko moom yàlla xitaab ya sama waxante ak moom wasirtu mujj naa jaaraa nekk ab dëkkandoor laxoo ci yàlla waxat saqarata mbir moom tàggatal na lii ñeel ma moom yàlla atu jaara way njula ya mooy commerçant ya sunu borom lay waxanteeg awma kenn affaire di waxanteeg moom ci sama kalima mukk diyante bépp ci yàlla laa ko jëmee te mujj naa doon dëkkandoor ci yàlla duñ tàqalikoo mukk yàlla moom tàggatal na ma commerçant yépp attu jaara mooy commerçant yi wëndeelu di wër di jaay wala ñi nekk ca marché ya yàlla daal tàggatal na ma ñëpp defe naa ne lii moom fu ni ni boo yoroon sa ab këll sax dugg ci marché bi na hëddiye borom Tuubaa doon te sa bopp rek tax tax a jóg léegi nga gis ku bëgg borom Tuubaa génn xaalis bu dul jeex jox la kon gis nga ko waaye nag li lay xamal loolu mooy keneen su ko bëggoon bu demee day jafe mais sëñ Tuubaa nag même boo ko doon nag jéem a nax sax kenn mënu koo nax nga dem ce marché ba naan jox leen ma hëdiyee borom Tuubaa te fekk sa bopp rek la tax a jox wallaahi laasim du yàgg sa këll ba fees. gaa yi xooluñ la yow nax gi ngay naxi de turu ki nga tudd moom la ñuy xool loolu mooy tàggat gi yàlla tàggal na commerçant yi Sëriñ Tuubaa tabaaraka li ko yàlla may ci njulokat yi kooko amul mel ni fi yàlla ko xam ne yàlla may na ko ko kon sëriñ bi ñëpp ko bëgg amul ko ko bañ koo ko xamul rek moo fi nekk kon laxoo ñeel na ko moom yàlla xitaabiya sama waxante ak moom wa surtout mujj naa jaaraa ab dëkk ndoor laxoo ci yàlla man sëriñ bi Tuubaa daal léegi daal mujj naa nekk ab dëkk ndoor fa yàlla boo ma gisee gis nga yàlla boo gisee yàlla maa nga fa moom yàlla moom na waxaat saqara tàggatal nga lii ñeel ma at tu jaaraa nga xam ne ay njulokat lañ ay commerçant lañ yaa man yow yaay ki nga xamee ne intaha yemukaayuk sayree samak dox bi bihi nekk na ci sa kàttan lillahi jëm ci yow yàlla kott yaa mustafan woo naa la yow ku ñu tànn ki siri sama mbóot bihi nekk na ci sa daraja lil muntaha jëm ca daytal ba a mu ne yow yàlla dox bi may dox jëm ci yow su fekkoon ne am na fu mu tàmbalee mën na la yemukaay bi jëmul ci kenn ku yàlla maanaam dox gi may dox jëm ci yàlla di wëndeelu jëmul ci ku dul yàlla daytal bi daal yàlla rek laa jëm awuma benn mi def bu ma jëm maa ngi lay woo yow yonent bi nga xam ne yow la yàlla tànn yow mi nga xamee ne daal sama mbóot fam yem kenn xamul ko ku dul yow yow rek yaa xam samay mbóot keneen xamul ko mbootu sëriñ bi kenn xamul ku dul yonent bi yaa jaa isa samaa i woo naa la yow miy jéggi as aji jéggi asamaanug bennal yaa jaa isa samaa i woo naa la yow miy aji jéggi asamaanu bennal li samaa yi xotti jëm ca juróom-ñaareel asamaan yaa man jaxalta yow yaa def sarmadan faw samaa i nga nekk sama téeg mooy nga nekk sama asamaan maa ngi lay xamal ne di la tagg doona xeebloona ruq yi ka yiiguwaay sax ruq yul mursalini yiiguwaay yonent yépp wal anbiyaay ak ñi ñu solo asaadati ña di ay sang al mu ña di ñuñ màggal dafay tag yonent bi mooy waxoon naa la waxin wii dafay nuroo wax imaamul busiri kayfa tarqa ruqyikal anbiyaaw yaa sama an maataawalat ha sama ci xam si yamba ndax dane imaamul busiri dafa waxoon yonent bi salaasam ci tagg ko nga xam ne dafa mel ni dafa gëlëm rek ci aqiqatul ahmadiya gëlëm ci aqiqatul muhammadiya ah mu ne ko yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag su fekkoo ne yaay asmaani juróom-ñaareel amul kenn ku la mën a romb mbindeef yëpp yonent yëpp ñi ngi ci sa ron sëñ Tuubaa ba tey loolu la defaat fii rek mu ne ko woo naa la yow mi xam ne yow la yàlla rañaane nga bay ko ci asamaan si tiim ñu muy asamaanu duniya bii jëm ci asamaan ak juróom-ñaareel ba romb ko ba fu mu neex yàlla yow kat yaa def tabaarakallaa faw nga nekk sama asamaan kon ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkee asamaanu juróom-ñaar ci gàttal daal nga xam ne kenn mënu koo romb moom sëñ Tuubaa su siggee bu xoolee rek asmaan juróom-ñaar rek lay gis ta mooy yonent bi sallallahu alayhi ndax yonent bi mooy mu nekk yow yonent bi fii la yàlla teg wallahi yonent yëpp ñi ngi ci saroon sa yéeguwaay daal fii la yàlla teg xeebloo na yéeguwaay yonent yi ak anbiya u ña nga xam ne ay sang lañ nekk ñu yàlla màggal ko jëlee di ci mbindeef yàlla yi nga jëlee ko dalee ko ci yonent yi ak anbiya yi ñoom ñëpp yonent bi doon sol dàll ñi ngi ci roon dàllu yonent bi yonent bi nag moo leen féete ñoom ñëpp moo tax mu ne ko yaa jaa sa samaa yi woo naa la yow mi aji jéggi asamaanu bennal li samaa yi jëm ci asamaanu juróom-ñaareel yaa man yow mi nga xam ne jaal te def nga sarmadan fa yi nga nekk sama asamaan di ma xanaa yonent bi rek mu ma féetee kaw mooy sama asamaan mooy sama kenu su ma xoolee moom rek lay gis maa naan ko yow yonent bi doona xebloo nga boo déggee xebloo nga mooy kawe nga doona xebloo na ka ruq yi ka yéeguwaay sax fa la yàlla yéegal daal xebloo na ruq yul mursalina yéeguwaay yonent ya wala anbiyaay ak ña ñu solo ña asaadati ña di ay sang al mubajili ña di ña di ñuñ màggal anbiyaay ak mursalina yëpp soo leen doon misaal ci maxnaa bu gàtt bi nga comprendre ko ci ron dàll yonent bi lañ nekk kon moo leen féete kaw. wa doona xeebloona rutbatika sa daraja kullu martaba bépp daraja salaa yàlla julli aleyka ci yow yonent bi man yàlla mi nga xam ne kafaani fegal na ma almaxtaba alkande mu ne ba tey daraja ji la yàlla jox nga am ko te kenn amul ko. waay bi nga am fa sa borom mu ne mboolem ñi am martaba nga tàmbali ko bay tey ci yonent yi ak anbiya yi ndax ñoo féete kaw ci bindee fi ñoom ñëpp seen martaba mi ngi ci roon martaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba tey bu fekkoon ne martaba yonent bi mooy asmaanu juróom-ñaar dégg nga asmaanu juróom-ñaareel ñoom seen martaba mi ngi ci asmaane benneel man nga ne jéeguñ sax bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax nag mu ne ko nag wa doona xebloona rutbatika sa daraja kullu martaba bépp daraja daraja yëpp ñi ngi ci suuf ñi ngi sa yaa féete kaw ñëpp daraja kon salaa yàlla julli alayka ci yow kay man yàlla bi nga xamee ne kafaani fegal na ma man borom tuba almaxtaba alkande yàlla mi ma musal ci alkande yàlla na yàlla julli ci yow sallallahu alayhi wasallam ba tey mu ñëw misaal ko misaal bu gat soo askanalee yonent yi ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi mel ne ngay askanee awliya yi rek ak yonent yi ku ne xam na ne awliya kenn du ko askanale ak yonentu ndax yonentu bi mujjee ñëw ci saayir moo féete kaw awliya bi ëpp doole fa yàlla kon gis nga ko mu ne soo doon misaal nag ne dangay askanelee yonent bi ak moromi yonent yi ak anbiya yi mu ne dafa mel ni nga ñëw di askane awliya ak anbiya yi te xam nga ne awliya yi anbiya yi ñoo leen féete kaw dégg moo tax mu ne fa nisbatu rusul yi askane yonent yi wal anbiya ak anbiya yi lakka ak yow kaas yi mu ngi mel ni seenu askane li lawliya ñeel awliya yi loolu mustahil la mustahil di waaw awliya uy yonent yi ñoo leen féete kaw anbiya uy ñoo leen féete kaw nga bëgg leen di askanale mu ne nag mu ngi mel ni soo ko doon misaal rek soo bëggoon a askanee yonent yi ak anbiya yi ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi mel ni nga jël awliya yi di ko tëkkaleeg yonent yi te awliya uy yonent yi ñoo leen féete kaw kon su fekkee nag yonent yëpp dajee nañ ba tey yonent bi noonu la mel seen biir dégg nga ni nga xamee ne yonent yi noonu lañ féete kaw awliya yi ci ay daraja yonent bi noonu la féete kaw yonent yëpp ci ay daraja moo tax ma ne fa nisbatu rusuli askanee yonent yi wala anbiya ak ña ñu solo ña lakka ak yow yonent bi mu ne kaxas wihim dafa mel ni seenu askanale li awliya ñeel awliya yi ñoom yonent yooyu nag fa muxjisaatum seen muxjisaat maxan ñoom ñëpp masaahiru ak fii ñu waay rek la lii muxjisaatika ci sa muxjisaat fa anta yow daal ci dëgg-dëgg asaahir aji feeñ ji yow taggu rafet mu ne ka mboolem muxjisaat ya yàlla feeñal ci yonent ya Muusa ak xeetam waag dégg dégg nga kii kaa kii ak kaa kenn ku ne la ko dalee ci aadama ba ci yonent yàlla Isaa mboolem muxjisaat bu mu mos a fiiñal te yàlla fiiñal ko ca moom ci ay nitam Muusa muxjisaat yim fiiñal Noo muxjisaat yim fiiñal Ibrahima muxjisaat yim fiiñal ñoom ñëpp boo ko doon misaal ci maxnaa bu gàtt mu ngi mel ni rek mbubu su jàmbur lañ yoroon. xam nga soo ñëwoon xàpp ma suma mbubu ta mayu ma la ko soo paree nooy def da ngay ñëw delloo ma soo amee ngor kay kon ñoom ñëpp bi leen yàlla fiiñale kenn ku nekk ak jamono ak ci ñoom la yónni ñi mu yónni leen ci ab dëkk ñi mu yónni leen ci ab ci ab ñi mu leen ci ab kër kenn ku nekk ak fa la yàlla yónni ci misaal te kenn ku ne bi la yàlla yónnee la nga xam ne mooy lay nit ñi mën laa gëm mooy mujisaat ba ngay fiiñal nee na nag dafa mel ni mbubu su jàmb rek lañ xàbboon ñoom ñëpp waaye dëgg-dëgg ka doon ka doon fiiñal mujisaat ya kooku ci mujisaat yónent bi sallallahu alayhi wasallam ci la bàyyi ko kon ñoom amuñ dara lépp yónent bi sallallahu alayhi wasallam luñ mën a am rek lu leen yàlla defee rek ñu ngi ko jëlee ci yónent bi sallallahu alayhi moo tax mu ne ñoom yonent yëpp fa mujisaatum seen saat maxan ñoom ñëpp masaahiru ak fii ñu waay rek la li mujisaati ka ñeel sa mujisaat maanaam ci sa mujisaat yonent yi seen mujisaat yëpp ci sa mujisaat ci la bay ko yaa leen moom ñoom ci seen bopp mujisaat yi taxut maanaam taxuñ koo jog yow rek yow mi yàlla di waajal pour nga war a mujj ci yonent yi yow yaa tax a jóg mujisaat ya waaye nag yàlla dafa jël mbubi di leen ko abal kenn par kenn tabaarakalaa ngir ñu mën a réussir ca seen woote ba ngir barkeelu ci sa mbubu si kon fa mujisaatum seen mujisaat ya seen mbubu yi maxan ñoom ñëpp masaayirun fii ñu waay rek la li mujisaatika ñeel sa mujisaat fa ant yow daal li am ca dëgg-dëgg asaahiru yaay aji fiñ ji yow la de la doon fiñ daal yow la waaye du ñoom de <laughs> ay woowu tagg moo kawe sëriñ bi nag ne ne man sana koo xamee ne dana jorto ne an naka naka yow sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam tusaawi da nga yemook albasra mi ne fi yaa man yow yonent bi nga xamee ne yesuuqu da nga màngal lii jëmee ci man al muna sama mbibét wal busra ak mbégte fa innahu naka kookee njorto loolee jëdir aji yeyoo bi tardi ci dàkkuk yàlla waraj mi akuk jamam anta yow sayidina muhammad daal al muqaddamu yaay ku ñu jiital la dal laayi fa yàlla alqadir yàlla muy ajaam kàttan ji laa fa kubar sëñ bi waxut ku am yëqiin de masalan nga jékki-jékki rek am koy tollale ak yonent bi moo xam yonentu la moo awliya la ku doon nga ne waaw kii est ce que tolluwut ak yonent bi maanaam njortu ko rek bay yow yonent bi nga xam ne lépp lu may mbibét man Serigne Touba yaa koy màng mu ñëw ci man lépp lu may bégloo yaa koy màng mu ñëw ci man mu ne ku njort na ne yow nag yow Seydina Muhammad da ngaa tolloo kenn ci mbindeef kookee njortu ko yàlla dana ko jam ci xali safaraam yi yàlla dana ko dàq muur ko yiir ko lépp lu yërmandeem kooku daal ku yeyoo dàq la ci yërmande yàlla ku yeyoo jam la ni ñuy jamee saytaan yi noonu lañ koy jamee ni ñuy jamee ñuñ safara ñun lañ koy jamee yow Seydina Muhammad kenn warulaa tëkkale kenn ndax yow boo demee fa yàlla muy ajaam kàttan ji yow la fa jiital nga turum jëfandikoo alxadir sañ-sañab yàlla moom lam jëfandikoo fa moom mooy yonent yi moo fi jiitu kon ku jorto ne yow da ngaa yemook mbindeef yi fa innahu kookee njorto loolu daal jëdir aji yeeyo la bi tardi ci dàkku waraj mi ak jam loolu moom ku yàlla sëril yël mandaram rek lañ koy def yàlla ñu ci yàlla musal anta yow al muqaddamu yaay ku ñu jiital la dal fa yàlla alqadir yàlla muy aji am kàttan ji lasta maqiisan déet ngay tolloo mukk lasta maqiisan déet di tolloog mukk bi si waaka ku dul yow lasta maqiisan déet ngay tolloo mukk bi si waaka keneen ku bokkut ak yow abadan faw minal waraa ci mbindeef yi say na man woo naa la yow taarub képp koo xamee ne taxaaba daa koog dana jaamu yàlla mu ne amul kenn koo mën a jël ci mbindeef yi ñi ne tolloog naag rasulullah boo leen peesee ci balaas ñu tolloo rok ci daraja ci anam yëpp moom daal anam yëpp moo ci féete kaw mbindee fi bal sax ñiy jaamu yàlla mooy seen taar taar bay fiiñ ci ñoom ñëpp kooku ñu ngi ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne lasta maqisan déet di tolloog bi ci waaka kurut yow abadan faw minal waraa ci mbindee fi mbindee fi koo mën a jël te bokkut ak yonent bi rek kooku tolluut ak yonent bi ta du tolloog moom mukk yaa say na man woo naa la yow mii taaru képp koo xam ne taxaaba daa kooku dana jaamu yàlla kuy jaamu yàlla tabaarakallaahu taar ba ngay jaamoo yàlla ci moom la bay ko ba tey mu ngay tagg yonent bi naan ko wari faatun ak yëkkatiku mahadiya in ànd koog leer min ka guy tukkee ci yow wasaati xaatin way jolli la ñoom leer ya baahiraatin tey aji not ci ak leeraay xaan wëlis la su ko defee taxuulu leer leer googu ak a yëkkatiku di bay ci yow di jolli ci waxtu wu ne dana dox bay naka sa diggante wa baynum ak seen diggante maxan ñoom ñëpp yaa man yow yonent bi nga xamee ne xam maxan notal nga lii ñeel ma xeddaa samay noon jami xan seen mu ne yëkkatiku leer gu bay ko ci yonent bi ak ak yëkkatikoom yonent bi bu doon jëmm leer gay génnee ci moom ak rifatu yëkkatiku gay génnee ci moom leer ga ci boppam dafa am doole ba nga xamee ne moo dox diggante yonent bi ak yonent yi mënuñoo xam sax fu yonent bi nekk loolu mooy daraja foofu la yem su fekkee yëkkatiku gii génnee ci moom leer gay bàyyeekoo ci moom di jolli di gën leer waxtu wu di wan gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam tasaaru fépp nee na moo tax nag yonent bi moromu yonent yëpp kenn xamul dara jaam kenn xamul ak yëkkatikoom nee na leer googu nag moo dox diggante yonent bi ak diggante yonent yëpp yow mi nga xam ne yow bi sama noonu yëpp yaa ma leen notal kon wari faatun ak yëkkatiku yow yonent bi mahad diyaayin ànd koog leer min ka guy tukkee ci yow wasaatihaatin mbir mu muy aji jolli moom leer ga ak yëkkatiku ga baahiraatin leer goo xamee ne dafay jolli ba not mboolem xeeti leer yëpp xam kaa wëlis la bi maanaa bay ko ci yow leer goog na taxulu dana dox bay ka sa diggante wa baynahum ak seen diggante ma an ñëpp ya man yow mi nga xam ne xamaa notal nga lii ñel ma alaa daa samay noon man Serigne Touba jëmee an ñoom ñëpp. kon leer ga nga xam ne daal ak yëkkatiku gay tukkee ci yonent bi di jolli albaahira day firi lu leer. waaye mooy leer goo xam ne dafa not ba lor ba not dafa leer ba not lépp luy leer mu ne fawqa ruqyi anbiya ilaahi ruqyu xayri xabni xabdilaahi doona ola waladi abdil mutalib ola aliyin lil jinaani yanqalib sëriñ bi ne fawqa ruqyi anbiya ilaahi kaweeg yéegu waay yonentu yàlla yi nekk na ci ruq yu xayriha kawe ka gën ci ñoom ibni abdillahi te mooy doomi abdillahi ji mu ne yonent yàlla yëpp seen daraja fam yem tabaarakallaahu foofu la yonent bi tàmbalee jëm kaw maanaam fa seen daraja yem ci kawe foofu la yonent bi tàmbalee ndax moo gën ci ñoom te mooy doom ci abdillahi kon ñam fa seen daraja yem ci kawe rek foofu la yonent bi tàmbalee jëm kaw bidayatul maahi nihayatul xiyaar fadlu alal warasul ixtiyaar la ma waxoon ci xasida faqat jaakum basirun kon fawqa ruqyi anbiya ilaay ka dégg nga fawqa ruqyi anbiya ilaay maanaam kaweeg yu yéeguwaay yonentu yàlla yi fawqa mooy kaweeg ruqyi anbiya ilaahi yéeguwaay yonentu yàlla yi maanaam yonentu yàlla yónni yëpp ak ñoom solo ñëpp seen yéeguwaay fa nga xamee ne dem nañ ba nga xamee ne fii lañ mën a wax ne fii lañ yem mine ruq yi nekk na ci yéeguwaayu xayriha ka gën ca ñoom ibni abdillahi te mooy doomi abdillahi ji kon ñoom suñ yéegee ba nga xam ne fii daal moom lañ mën a yem ah te seen yéeguwaayu kaw yooyu yëpp ci darja yonent bi ci lañ yéegee ba yegg ci ba yooyu mu ne foofu la yonent bi tàmbalee nag jëm kaw kookuy ruq yu xayri hab ni abdillahi tagg wu kawe la wu kawe kawe la woo xam ne kenn mënu ko tabarakallahu misaal ba tey mu ne doona xeebloona xoolaa kawe gi nga xamee ne moom la kawe wala di Abdul Muttalib yonent bii di doom ci Abdul Muttalib xoolaa kawe xaliin aji kawe yan xalib koog dana wëlbatiku di jàllat bi ko lil jinaani ci aljana ya mu ne yonent bii di doomi Abdullahi ji kawe gim kawe gàccal na xeeb loona képp koo xam ne dafa nekk ci aljana dugg aljana amee dara ju ju kawe ak di soppax ndi ci biir aljina di jàllat bi ko nu ko neexee ngir kawe gam kawe. nee na yow sa kawe googee mi ngi ci roon kawe gi bi moo tax mu ne doona kawe na on la dégg nga on la doona na nga fi mooy xeebloo na on la kaweeg wala di abdi mutalib yonent bii di doom ci abdi mutalib maanaam kawe gim kawe xeebloo na on la xaliyin kaweeg aji kawe joo xam ne yan xalib dana wëlbatiku lil jinaani ci aljana ko dégg ñu ne tàbbi na aljana bal mi ngi ci roon dëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye kawe gi moom ci aljana kooku kenn mën koo natt. ahmadu ahmad man mooy ki nga xamee ne raada tàggatal na lii ñeel ma kulla xaasimin bépp aji tooñkat ala wasilati yàlla nekk ca wala nga ne ahmadu danaa sant man yàlla mi nga xamee ne raada na lii ñeel ma kulla xaasimin bépp ab tooñkat ala wasilati yàlla nekk sama wasila ba lahoo jëm ca yàlla ibnu xaasim ta mooy doomi xaasim ja mu ne danaa sant suñu borom mi nga xam ne képp kuñ naan xaasim xaasin ci arab nga xamee ne xañ ñamintulu la ak alif ak siin su tooy ak miim kooku su ko arab waxee rek maanaam lam ci jublu mooy ñi nga xam ne ay tooñkat lañ dégg nga maanaam képp koo xam ne ab tooñkat nga rek yàlla tàggatal dama buñ ne xaasim mooy saalim danañ ko firee xaadib koo xam ne day mer rek dañ ko fire salim mooy ko xam ne dafa mën a tooñ dégg nga waaye eh, buñ ne rajuloon xaasimun rek mooy saalimun qadirun qaasimun quwwatun qaasimatun mooy ko wax daal foo ko fekk rek tooñ rek mooy mbiram te itam dafa yomb mer loolu yëpp te sëñ bi lam ci nam rek mooy ñi nga xam ne mooy ay noonam ndax dañ koo tooñ yóbbu ko ci géej ga moo tax na mu ne danaa sant yàlla mi nga xam ne tàggatal na bépp tooñkat sant gi nag yàlla ko yàlla sotti ci sama wasila bii nga xam ne moo dox sama diggante ak saa borom te mooy doomi xaasim ja di yonent bi xaasim ci maami yonent bi la ni ñoom dañ daan wax loolu Muhammad doomi Abdul Mutalib te fekk maamam la Muhammad doomi Haasim la fekk maamam la Ahmadu danaa sant man yàlla mi nga xam ne raada tàggatal na lii ñeen ma ku kulla qaasimin bépp tooñkat képp ku ma tooñ rek yàlla tàggatal na ma la ba nga nooy ci sama pegg sant gi nag ala wasilati yàlla nekk ci sama wasila bii nga xamee ne moo dox sama digganteeg laxoo ñeel yàlla ala wasilati sama wasila bii laxoo jëm ci yàlla ibni xaasim kay doom ci xaasim ñi ne ko kookoy kan mu ne huwa moom annabi mooy ku ñu soloo ka wa rasulu mooy ndaw li yàlla yónni ci mi def yëpp al saahiru mooy aji feeñ dégg nga anwaaru anwaaru xayru hoo leeram ga ci la balee ci la feeñee leeri keneen ku bokkut ak moom la hoo ñel na ko masaahiru feeñuwaay yi feeñuwaay yëpp feeñuwaay leer yëpp ci leerug rasulullah yi ci lañ bay ko te moom leeram gi ci leerug yàlla rek la bay ko koo jëlite rek leeram gi tabaarakallahu mu ngi tukkee ci leerug yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax yonente boobu moy an nabiyu di ar rasulu as saaxiru dégg nga mooy ku yàlla déey jox ko xam-xamu nubuwa mooy ki yàlla yónni ci mbindeef yëpp waaye mooy aji fës ji mooy aji fiñ ji bal leeram nga ci boppam leer yëpp ci moom lañ fenqee ci moom lañ bàyyeekoo leer goo mën a jëlati rek su feeñee kooku leer ak rasulullah ci la ballee ci la feeñee. moo tax mu ne yónneent bopp huwa moom annabi mooy ku ñu solo ka war a mooy ndaw lu yàlla yónni asaahiru aji feeñ la anwaaru anwaaru anwaaru xayri hoo maanaam leeru keneen ku bokkut ak moom laxoo ñeel na ko moom leeru kookee masaahiru feeñuwaayam tukki ci feeñuwaay yonent bi maanaam leer koo mën a jëlati rek leeram nga moom kookee mi ngi bàyyi ko ci leer gu yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon leeram gi ci boppam ci la leer yëpp di balee ak leer koo mën a jëlati rek ci nit ñi ci leer ko rasulullahi la bay ko moo tax mu ne anwaaru xayruhu leeru keneen ku bokkut ak moom moom yonent bi laxoo ñeel ko masayru ak feeñuwaay koo jëlati rek leeram mi ngi tukkee ci leeru yonent bi salaa yàlla julli alayhi ci moom xayra xaafisin ngën gi aji wattu ji wanaaf tey aji yëkkatiku kamastafaahu comme ni nga xam ne noonu la ko tànnale lanaa ñeel ñu min abdi manaaf mu bàyyi ko ci giir gu ñoo xam du manaaf maam ji ñoo xam du yàlla mi ngën gi aji wëttu ngën gi aji yëkkatiku yàlla julli ci yonent bi comme ni ñu tànnale yonent bi mu bàyyi ko ci maam ju ñu wax abdi manaaf yalla na jullee noonee ngën gi julli ak sëlmal moo tax ba ne salaa yàlla julli alayhi ci yonent bi xayru xaafisin ngën gi aji wëttu te mooy yàlla wanaaf ngën gi aji yëkkatiku an naaf mooy ay irtafan rek képp ku yëkkatu yàlla moo la gën te moo la gën a yëkkatiku kon xayru xaafisin ngën gi aji wëttu wanaaf ak ngën gi aji yëkkatiku yàlla julli ci bi kama stafa comme ni nga xam ne noonu la ko tànnalee lanaa ñeel nu min abdi manaaf mu bàyyi ci ku ñëw abdu manaaf kenn la ci maamam la sadara fi ñii na mooy gonge koona min anwaari si liwaa yi bàyyi ci leeruk borom liwaa ul hamdi ba ñi ne lu ci gonge ko mu ne nuuru jamiyal xalqi leeruk mboolem bi mbindefi leeruk mboolem mbindefi yëpp yëpp koo mën a jël ci mbindefi rek ak kum mën a doon jarul nga ci génne kenn kal adduwaay ni ki yeneen xeeti leer yëpp mu ne ci leeru ki nga xam ne mooy borom liwaalu xam di ba muy drapeau bu ko yàlla jagleel bu yowmal qiyaamee sëriñ bi wax na ca xasiida ya ne wëllu yàlla yi ci la ñuy nekk ak yonent yi ci ronam mu di leen keral fegal leen lépp luy tàngoor ak mar ci yowmal qiyaam ba su ko defee tax fii mu leeram gi rasulullahi ci la leerug mbindeef yëpp balee leerug mbindeef boo mën a jël rek ci la ci la balee waaye adduwaay googu mu tudd maanaam xam nga adduwaay ci arab mooy leerug jant bi lu mel ni ñu ne leerug weer wi xam nga loolu du mbindeef lu mel ni leerug xam-xam lu mel ni leerug weer lu mel ni leerug jant lu mel ni leerug courant bi xeet leer yooyu moom lañ namm ci al yi lu mel ni leerug suba gi xeet yooyu lépp lu leerati nga xam ne daal ba bokkut ak mbindeef waaye mbindeef mën na ko jëfandikoo mën na caa ñiitoo loolu mooy al adwa yi boo nekkoon si kër lamp bi ngay taal kooku adwa la daw u la daw daw u la daw u lañ ko wax muy leer lamp bi ngay taal moo xam sondel la moo xam lamp yàgg yoo nga xam ne dañ ciy def pétrole muy tàkk yooyu yëpp daw u lañ koy tuddee kon daal leeru mbindeef yëpp ak leeru làmp yi bal leeru jant beeg weer yi yëpp ci leeru ci lañ feeñee moo tax mu ne sa dara gongeekoo na min anwaari tukkee ci leeruk sii liwaa yi borom liwaa loo xam lan moo ca lan moo ca fiiñee mu jamiyel xalq leeru mboolem bi defi kal adwaay ñi ki yeneen leer yëpp lu mel ni jant beeg weer yeeg lamp yeeg lépp bépp leer gu bokk rek leeru mbindeef rek kooku may adduwaay ñoom ñëpp ñu ngi feeñee ci leeru yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu. salaa yàlla julli wa sallama te sëlmal yàlla mi nga xamee ahoot dana ma delloo bi ci barke bi yonent bi ilaa masaajidi ma jëm ci samay jàkk laxoo ñeel na ko neex ma baax na almuheet yàlla muy aji delloo ja mu ne yàlla yàlla julli te sëlmal moom mi nga xam ne ci barke bi yonent bi ci la may dello ma dem nag ci samay jàkk jàkk yi nga xamee ne moom rek moo ko moom laxoo gi day dellu ci yàlla ndax wa anal masaajida lillaay kon lim fi bàyyoon yépp ci barabukaay jaamukaay yàlla bi mu nekkee ci tukki ba mi ngi ñaan yàlla delluwaat ci barab yooyee moo tax ma ne est-ce que baax na yàlla moom nga xam ne bu delloo bi di am daal ci moom rek la aajo waaye nekkul ci sama digganteeg noonu wala sama coob rek bopp kon salaa yàlla julli wa salaam te sëlmal ala ci yàlla mi nga xamee ne axoon dana ma delloo bii ci barkab yonent bi ilaa masaajidi ma jëm ci samay jàkk ko mooy jàkk yi daal moom rek la ñeel neex ma baax na almuhet ma muy aji delloo ji ali yàlla nekk ci yonent yi moom julli goog fil ali moog ñoñ ña wa fii sax bi ak saa bam ye maxan yëpp waxa mu notal moom yàlla lii ñeel ma bii ci barkab yonent yàlla bu jullee ci yonent bi ba noppi yàlla julli ci waa këram ak saabaam yëpp maa ngi koy ñaan bépp noon mu notal ma ko ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa xamaha yàlla na ma yàlla notal lii ñeel ma bii ci barke bi yonent bi ku la àdduin bépp noonu ba tey xasida googu dafa mel ni eh, dañ koo indiwaat fii waaye nag mujjanteel ga dana xaw a soppeeku waaye lañ firi woon fi rek moom la ñuy firi moo tax mu teg ci nag wa baxdu gannaaw ba ma sant yàlla julli ci yonent bi fal xaradu xemam téef bi nasmun mooy woy woo xam ne Yustafa tànneef na ko. fii jan bi sayidil baraya ci wàllug sangum mbindee fi al Mustafa kada kuñ tànn. salaa yàlla julli ali ci yonent bi man yàlla mi nga xam ne raqaani yéegee na ma bii ci barkeb yonent bi. kamaa kaba niki noonu la nërmale bii ci barkeb yonent bii ci barkeb bi. àll ci ngóor sa nga xamee ne alqaani daje woon nag man ci jaysasin mooy ki ma sànni woon ci géej ga. aska salaatin gën kaa sell ci at julli bi salaamin gu ànd yaqbalu goo xam ne dana nangoo moom yàlla bihaa ci julli googu ak sëlmal googu jihaad yi sama jihaad allatina ak ña nga xamee ne kubiloo jéngis na leen mu ne gannaaw ba ma sant yàlla julli ci yonent bi sama bëgg-bëgg sama xamimteef mooy woy woo xam ne dañ koo tànn dégg nga nga xam ne dafay gànjuru dana féete kaw mboolem woy yi ñëw woy yonent bi waaye dama ko jëmee ci wàllu sangu mbindeef yi ka nga xam ne mooy ku ñu tànn ka yàlla yàlla julli ci yonent yàlla mi wax na moo ma tarqiya yéegee ma moom ci barkeb yonent bi noonu ba daje woon ak man ci géej ci yàlla daf ma koo nërmeelal jëngal ma ko yala daf ma ko daanal. gën kaa seetlu julli gu ànd ko sëmbal ci saw bu julli a asëmbal goge nga xam ne ci lay yàlla di nangoo sama jihaat ak nasaraan yi nga xam ne suñu borom jéng na leen ñoom ñëpp. xool lii dama xamul ndax sëñ bi moo ko teglante nii wala tabaarakallaahu ñiy bind ñoo ko defee nii rek waaye alaakulaa lu ci mënta ka am suñ ko firee rek mooy lañ romb rek ak lii benn lañ amut benn soppeeku. laxoo ñel na ko moom yàlla xis naa bi sama waxante ak moom wa surtout mujj naa jaaraat di ab dëkkandoor laxoo ci yàlla waxat saxara te mbir moom tàggatal na lii ñeel ma attu jaaraat ñi nga xam ne ay commerçant lañ yàlla moom kese waxante waxanteeg te mujj naa nekk dëkkandoor ca moom te mboolem ñi ñuy tuddee ay commerçant ñoom ñëpp yàlla tàggatal na ma leen ci saahir ak ci baatin ba lépp loo xam ne soxla naa ko rek mbaa ma di ko bëgg du ma ko sant ci ñoom kenn te dana ma ko defal yaa man yow yàlla yow yaay ki nga xamee ne intaha yemukaayu sayre sama dox bi bii ci sa kattan li laay jëm na ci yow kot yaa mustafan woo naa la yow ku ñu tànn ki di yónent bi siri sama mbóot bi nekk na ci sa daraja lil muntaha yemukaay ba yow sunu borom maa ngi lay woode ndax li may dox jëmul ci kenn ku dul yow bu doon ab yemukaay daal ci yàlla rek laa jëm sama yemukaay ci yàlla rek laa jëm jëmu ci kenn woo naa la yow ku ñu tànn kii di yónent bi sama mbóot daal fa yem yow rek la yàlla baaxee nga xam ko ci sa daraja yaa jaay sa samaay woonaal yow mi aji jéggi asmaanu bennel li samaay jëm ci asmaanu juróom-ñaareel yaa man jaxal te yow yaay kii def sarma daan faw sama yi nga nekk sama asamaan doona xebloo na ko ruq yi ka yéeguwaay sax ruq yul mursalina yéeguwaay yonente yëpp wala anbiyaay ak ña ñu solo ña asaadati ña di ay sang al mubajilin ña du ñu màggal woo doona xebloo na ruut bati ka sa daraja kullu martaba bépp daraja salaa yàlla julli alayka ci yow man yàlla mi nga xamee ne kafaani fegal na ma almaxtaba lépp luy alkande mu ne woo naa la yow mi xotti asamaanu bennal jëm ci asamaanu juróom-ñaareel kenn mënu koo romb te yow yàlla may na la nga romb ko nag ci mbaaxam kon ni asamaanu juróom-ñaareel féetee kaw asamaan yëpp ak nit ñëpp nga xam ne waa asamaan ak waa somb foofee te yàlla may la nag nga rañaan ba jéggi fa sa ba tey noonu rek la toll. yow yaay ki nga xamee ne nag yow yaay sama asamaan kon su fekkee sëriñ bi yonent yi mooy juróom-ñaareel asamaan te moom sëriñ bi yonent yi mooy asamaanam kon la muy tegtale foo gis yonent bi gis fa bi mu nekk yow yonent bi nag man Sëriñ Tuubaa maa lay tagg fii la yàlla yéegal yónente yëpp ak anbiyaaw ña nga xam ne ay sang lañ nekk ñu yàlla màggal ñëpp ñi ngi ci soroon naka noonu sa daraja fi ko yàlla yéegal ba tey daraja yëpp ñi ngi ci ñi ngi ci soroon daraja kon nag yàlla yàlla julli ci yow yàlla mi nga xam ne fegal na ma lépp loo xam ne xëyti alkande la fa nisbatu fa nisbatu rusuli askane yónente yi wal anbiyaay ak ñañu solo ñi lakk ak yow kaxaas wi mu ngi mel ni seenu askane yónente ya li lawliyaay ñeel ak awliyaa yi mu ne soo doon misaal nu yonent bi demee yonent yëpp ni mu leen gënee mu ngi mel ni rek nga di ko misaal awliya ak yonent yi ku ne xam na ne yonent yi ñoo gën awliya yi kon soo doon misaal ba tey gënug yonent bi danga koy misaal rek gënug yi ci kaw awliya yi noonu la yonent bi gënee ci kaw yonent yi moo tax ma ne fa nis ba turusuli askanee yonent yi wala anbiya ak ñooñu solooña lakk ak yow Seydina Mohamed kaas yi mu ngi mel ni seen askaneel yonent yi lil awliya ak awliya yi xam nga loolu la ndax awliya u yonent yonent du moroom nga bëgg koo tëkkaleeg nag yonent yi awliya boo jël bëgg koo tëkkaleeg yonent yi te yonent uñ seen morom kon nag soo bëgg a tëkkaleeg yonent morom ak moromu yonent bi ba tey noonu rek la mel yonent bi duut moromu yonent yi yàlla moo ko def fa moo ci saatum seen moo ci saat ya maxan ñoom ñëpp masaahirun ak feeñu waay la li moo ci saati ka ci sa moo ci saat fa anta yow Seydina Muhammad asahir yaay aji feeñ ji mu ne ñoom ñëpp ba tey moo ji saat yi yàlla doon feeñal ci ñoom ñoom ñëpp ci yow lañ ko jëlee dañ koo xàbboon rek ba mu pare ñi delloo la ko man sax na koo xamee ne dana jorto ne anaka naka yow yonent bi tusaawi da nga yemoog benn mbindeef yaa man yow mi nga xamee ne yesooku da nga màngal li jëmee ci man al munaa sama mbébét wal busara ak mbégte kookee njorto loole fa innahoo kookee jadir aji yeyoo bi tardi ci dàkku waraj mi ak jam anta yow yonent bi al muqaddamu yaay ku ñu jiital ki la dal laay fa yàlla alqadir muy ajaam kàttan ji mu ne képp ku njort na yow am na menn mbindeef moo tolloog wala ngay maaseeg moom yow mi nga xam ne lépp lu may mbébét yaa koy màng jëmee ko ci man lépp lu may bëgg ci mbégte yaa koy màng jëmee ko ci man mu ne koo kee njorto loolee defe na da ngaa tolloo kenn ci mbindeef yi na xam ne yeyoo na ñaar mooy danañ ko dàq ci man de yàlla danañ ko jam ay xali safara ndax da yeyo yeyoo yow kat ca dëgg-dëgg daal yaay ku yàlla jiital fa moom kon man fana képp koo xam ne njorto ne anaka ah, naka yow yonent bi tusaawi da nga tolloog da nga yemob basara benn mbindeef yaa man yéesoo ko yow mi nga xam ne da nga màngal yow bi li jëmee ci man almuna sama mbébét wal busara ak mbégte fa innahu koo koy njortu loolee kat jëdir aji yeyoo la bi tar di dàkkug yàlla waraj mi ak jamug yàlla anta yow yàlla dégg nga wala anta yow yonent bi almuqaddamu yaay ku ñu jiital la dalaay fa yàlla alqadir yàlla muy ajaam kattan ji yow yonent bi daal fa yàlla yow rek la fa yàlla jiital kon ba tey lasta maqisan déet ngay tolloo bi si waaka kudut yow abada faw minal waraa ci mbindeef yi say na man woo naa la yow mi xam ne yaay taarub ne taxabara dana mu ne kon nag mbindi fi amul kenn kuy ku ñuy gam-gamle ak yow di ko tëkkaleeg yow yow mi nga xamee ne ah képp kuy jaamu yàlla taar bay fiiñ ci moom kooku yaa ko ko jox kon nag buñ doon wiri fi mbindeef yëpp kurud yow daal nga xam ne kii mooy yonent bi kon koo jëlit rek kenn du ko nattale ak yonent bi farifaatun ak yëkkatiku mahat diyaayin ànd koog leer min kaa guy tukki ci yow wasaati aatin mbir mu ñuy way jolli ñoom leer yi ak yëkkatiku ga baahiraatin mbir mu ñuy way leer xan kaa la yexoolu koog dana dox bay naka sa diggante wa bay noom ak seen diggante maxan ñoom ñëpp yaa man yow mi nga xamee ne xam maxaa notal nga lii ñel ma alaxe daa samay noon jëmi xan ñoom ñëpp mu ne leer gi bàyyi ci yow ak yëkkatiku gi maanaam fi la yàlla teg yëkkatiku goo nga xam ne mi ngi ball di bàyyi ci yow ak sa leer gi bàyyi ci yow di ball waxtu ne di jolli leer naññ mu ne leer goog nag moo dox sa digganteeg ñi lay askanalee te mooy yonent yi ku ñuy tëkkaleegi yonent bi rek dafa am leer goo xam ne dafa leer naññ guy dox seen ba doo xam dara jam moo tax mu ne ko nag ak yëkkati ko ak leer gu bàyyi ko ci yow su ko defee leer goog nag ak yëkkati ko yi leer naññ di jolli ah wëlis la nag bàyyi ko ci yow su ko defee nag mooy dox sa diggante ak diggante yonent yëpp ak képp ku lay tëkkaleeg tabaarakallaa ba doo mën a xam wàccuwaay yonent bi wàccuwaay yonent bi kenn xamul ko ku dul yàlla yahuulu bay ne ko bay nu maha mu ne ko nag yow yonent bi mboolem samay noon yëpp yaa ma leen notal ci saahir ak ci baatin sama noonu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nootal na ma leen ba mu mucc ci ñoom